waaw dëgg la xam nga bu fekkante ni bilee defuñu woon dara tey jii rentrée bi dina am problème ndax daanaka ñaari junni élève maître yu nekkoon formation su fekkante dañu woon dañuy arrêté fa formation bi dañu am problème parce que dinañ tëj classe yu bari ba tax na bi mbir mi amee comme léegi dajaloo di former euh, nit ñi mootu la nekk di former xale yi mootu la nekk donc ci lañu ne forcément pour nous continuer euh, les, les, opérations de formation, il faut nécessairement nous faire à distance. Nous avons accompagnement à euh, UNICEF, nous avons aussi tout le matériel. Donc, nous avons le CRFPI, nous avons des tablettes. avons euh, aussi des ressources, parce que il faut embarquer des ressources Nous li li xale yi war tablettes yi avons créer plateforme plateforme euh, la plateforme loolu def yàlla dimbali ñu ci lañ doon defee ci mais eh, le 25 juin mais aussi ci nous euh, exercices même ay ay devoirs formateurs lañ aussi ndax nit ci aussi formation présentielle maanaam ñoo donc nous former rapidement les formateurs wax avons jox une ay formation à distance donc nous euh, tamit euh, une moo ñu ci euh, ak accompagner les directeurs et directeurs des études Nous avons nga xamante ni bii ñoo jiite CRFP yi nga formateurs nous avons ñooy ñoom ñooy jiite politique bu formation bi donc ñoom tamit defal leen formation ci formation qui ci naka euh, à distance ba véritablement ñu mën participer ci ci formation bref yàlla daal dimbal nañu loolu permettre continuer non seulement formation mais aussi def examen ba yi affecté.